ci lay téema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara soxna jaara moo di dey ba mi desi di feeñaat teeram wa de foofu soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu bew waayi nga te waayi nga te farax nga te foo yàlla na fi des yàllal yàlla yàlla jox barke soxna jaara bu defan suq ak cuune duñu wan ki ñuulu dolle des xëjul cim nen soxna jaara la julli te jàppul a julli te wildul doole kay sangam tuubal daal wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxna te njaayi mbokkam taalam sa maaram lalaalal sëñ gaawaan sëñ gaawaan rekki ban jaamam jaam say jaam baatin bambal kami xaad bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ba ñu ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñu ngi sant bu baax Cheikhul Khadim di ñaanam Serigne Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool ak yërëm di ñaanal bu baax a baax Serigne Ahmadou Bousso ñu xalifa Serigne Cheikhou moom itam suñu borom jàkkal ko fi lool te doole ak yërëm di am mbégte lool nag ci siyaar bu am solo bii nga xamante ni Sahadatou Toulat ñu ngi koy amal ñu gën leen a xam ci génération Cheikhou muy liggéey bu am solo boo xam ne at mu jot gis nañ ne danañ teew ci barab bi amal fi siyaar bii. muy lu am solo nag loo xam ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañ ci dañ koy béggee bu baax a baax ndax it euh, sunu maam ju baax ja muy sëriñ seexu sunu borom dogal nag ñu ko denc mu nekk ci biir barabu sëriñ bu soobe te sëriñ bu soobee ñëpp xam nañ digganteem ak boromam ñëpp it xam nañ ni nga xamante ne moo doxoon digganteem ak sëriñ Touba ginnaaw bi nga xamante ñëpp seede nañ nga xam ne sëriñ bu soobee dafa diyaalu woon ak sunu borom tànka doom bi mu am lu wàllu yu moom du denc soxla ba sunu boroom nangul ko ko te yaakaar naa nag doomam bi njëkk a feeñ jamono mooy Serigne Cheikhou Bousso bi nga xamante ni moo waral jataayu tay bi. barab bi ñu daje itam di barab bu am solo ndaxit dafa bëri ay symbole yoo xamante ne ni fii la sunu borom dogalee mu amee fi barab bii ma leen di waxee mën naa ne mooy cosaanal Mbàkke barab bii mooy cosaanal yoonu murid ndax it Mbàkke biñ koy wax fii moo nekkoon dëgg dëgg Mbàkke xewar barab bii ñu tajee tey mën nañoo wax ne moo nekkoon kër seexul xadim ci Mbàkke di sunu boroom dogalee itam seexul xadim di fi jógee di dem Daaru Salaam ci la ko rafaatale woon woy juróom wa mu jaama muy sëriñ bu soobe sëriñ bu soobee nekkoon fi di fi jaamu yàlla di fi liggéey yàlla ba wàcc ab liggéey sëriñ Touba joxe ndigal nañ ko ci jàkkaam kon fii moo nekkoon ci cosaan kër sëriñ Touba nekk kër sëriñ bu soobe waaye rek bi sëriñ bu soobee nelawee la sëriñ Touba wax nañ ko denc ci jàkkaam moo taxit magam ju tedd ja Cheikh Ahmadou Diarra Mbacké borom saam bi mu wàccee liggéey Serigne Touba itam wax ne nañ ko yóbbu ca nijaayam moo tax Serigne Bousso bi nekk nii Serigne Mamour Diarra nekk nii diggante bi itam bi Serigne Touba ñëwee Serigne Bousso bi ne mu koy jaale si ndax ñëpp xam ngeen ne bi muy def lextakaar ca Daaru ko doos am na lu ko yonent bi waxoon bokkoon na ci seen jaay ji naan Serigne Bousso bi sunu borom daf ko rus te lépp lu lay bëgg a dal dana ko yëg. te bu ko yëgee ñeewantu na la ba dana ñaan yàlla te bu ñaanee yàlla yàlla dana ko tekki mm. nga xam ne kon moo tax di sëriñ bu soobee nelawee ba mu jaale si ko rek ci la nattu yi tàmbali mm. ci sëriñ Tuubaa waxoon na ne barab bii képp kuñ fi denc mm. malaaka yi nga xamante ni ñooy laaj nit ci biir bàmmeel do suñu borom dogal na doo leen gis dana leen ci mujjal kon barab bu am solo la moo tax taawam bu baax la di sëriñ Seexu Buso bi mu wàccee liggéey ca Lasar ñu mu am ñu amaan ndigal ci sëriñ bi ñu yanoo ko lasar ñu andi ko denc ko fii kay kon ci barab bi kon mu nekk barab bu am solo boo hmm. xamante ni euh, barabu siyaar la mu nekk barab boo xamante ni cosaan la ci ci yoonu mooy bëri na lu xew wala taal bu tàkk hmm. la ko tàkkal fii la jógee hmm. kon barab bu am solo la koo xam ne ñëpp war nañu ko bàyyi xel di fi siyaar si di ko nemmeeku ngir delloo njukkal sëriñ Touba te ñu xam bu baax a baax ne diggante bi njëkk tuubaa di am fii moo amul kon mboolem ñi daan ànd ak Serigne Touba moo xam muy ay nit yàlla yu am solo ñëpp bi ñu wàccee liggéey fi lañ leen denc jëlay jox firnde barab bii Serigne Bousso bi nekk Serigne Cheikh Bousso Diop taab nekk doomam doomi Serigne Touba ji tudd Mouhamadul Abdoul Xaadir mu ngi ci biir barab bi sama nday joor Serigne Ahmadou Yoddaali fi la nekk muy taaw Cheikhul Khadim sama càmmoñ ñaari doomi sëriñ Touba bi kenn ki di soxna Faati ak maa ngi fàtte beneen tur bi hmm. nga xam ne kon man naa ne fii moom day barab bu am solo boo xamante ni man daal def cee bokk bu baax a baax ñu bàyyi bu xel kon ñu santaat bu baax a baax nag waa Sahaadatou Tourab génération Cheikhou ci liggéey bu sell bu am solo bii nga xamante ni ñu ngi koy amal ndax danañ ñu fàttaliwaat danañ ñu delloosiwaat kon ñuy ñaan yàlla li nga xam ne moom lañ ciy mébét ci seexar bi yàlla ko suñu borom nangu di ñaanal suñu maam bi Serigne Cheikhou Gouga yàlla na ko suñu borom gën a dolli ay leer yàlla na ko suñu borom gën a wanale mooy juróom ba Serigne bu soobee ak mboolem ñu baax ñëpp sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di ñaanal bu baax a baax na xalifa bi sëriñ Ahmadou Bousso suñu borom bàyyi ko fi te yàggal ko fi te yéen a ji ci liggéey bi sëriñ Seex waaye nga te waaye nga defar nga teefoo nga jëloon bi di jiite si nuyoo bi ak siyaar bi ala xalifatul aam Cheikh Mahamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom ko fi loolu ko kàttanal ko yi nga xam ne naal na ko ba suñu baat yeneen dañu ànd ko moom ci barke si Cheikh Xadim noonu nii la ñuy yoo sëriñ Bousso bi Bousso bi nga xam ne moo toog jotaayu suñu maam sëriñ Bousso bi Bousso noonu tamit la ñuy siyaaree sëriñ Ahmadou mbir kilaam mi nga xam ne moo toog jotaay suñu maam Serigne Cheikh Omar Foutiyou Bousso di ko ñaanal moom tamit suñu borom yàggal ko fi loolu ko te kàttanal ko moom tamit ba mu àggalee yi nga xam ne naan na ko ci kër maamam bi di Serigne Cheikh Bousso ba naalal yeneen naal yëpp ñu ànd ko moom ci barkeb Cheikhul Khadim ñi nga xam ne noonu lañ ko baaxoo di defee ànd mu yëpp mais yaakaar naa ren jii di cinquième édition ñi nga xam ne ginnaaw bi ñuy benn ziar bi nga xam ne waajoon lañ ko su mayoon ko ci bu suñu maam sëriñ Cheikh Bousso bi ak suñu maam sëriñ Bousso be ak suñu maam boroom saam bi Mamour Diarra dañ ko tàmbalee ba léegi nag ren na ci cinquième édition juróomeelu bi nga xam ne ñu ngi fi ñëw di ko siyaar si siyaar bi nag da dara warula ko dugg bërëb bi day bërëb bu tedd di bërëb bu sell di bërëb bu ñaan di bërëb bu faj aajo ndax fii nii ñu nekk di bërëb bii ñu koy wax mbusoo bi day bërëb bu sell bu mat a ñëw ndax ci taarix eh, yaakaar jaam ni Seexuna Seex Ahmadul Xadim moom moom woon fii fii këram la woon waaye bi nga xam ne sëriñ Mbusoo bi ñu gis na fii ci Mbàkke la Sëriñ Tuubaa santal Sëriñ Bousso bi xam nga ne Sëriñ Bousso bi mooy nijaay Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Bousso Ibrahima ñuy waajur sëñ Tuubaa ñoo bokk waajuru góor ak waajuru jigéen kon sëñ bu Fodé mooy liggéey jànq sëñ Tuubaa sëñ bu Fodé ginnaaw bi nga xam ne ñibbisi na fii ci Mbàkke sëñ Tuubaa da ko sànqal këru boppam fii daa dem tukku Daaru Salaam sëñ bu Fodé moom fii la nekkoon mais ni mu fi jigee wàcc fi liggéey ñu denc ko mu am na fii mu nekk di barabam bii moo doonoon jàkka yi nga xam ne fi la liggéey ab tawam nag di Sëriñ Cheikh Oumar Foutiyou Bousso li nga xam ne moo waral siyaar bi moom tamit ñu ngi fi jigee dañ ko indi ci wetu baayam sëriñ bu Fodé moom tamit ñu nekk ak moom borom saam muy maam mu soxna jaara muy magi mag moom tamit gis ngeen fi la nekk te barab bii wax na ne Serigne ba nee na euh, malaaka yi nga xam ne ñooy laaj ci bàmmeel xamuñ barab kon barab bu mat a bàyyi xel la barab bu mat a sóoraale la barab bu mat a sàkku la barab bu mat a siyaar la bëri na ci ñoo xam ne nii xëy na amoon nañ bëri na ci ñoo xam ne xëy na am na loolu umpoon ci barab bii ginnaaw bi siyaar bi biñ ko biñ soosee siyaar bi ñu bëree bëri ci leen xam barab bii mooy ban bërëb ci leen xam te biñ jëriñ barab bi ci leen xam te bi ne sëriñ Bousso bi ci lañ ko denc na ñoo xam ne ci lañ yoo xam ne sëriñ si waxu fi lañ ko denc ba ci lañ euh, ko siyaare bay dañuy dëgg seen te ñëw defa siyaare ci ci soos gi nga xam ne siyaare bi soos na ko ci lañ xamee loolu ñoom tamit ñëw di ko siyaare kon demee ne siyaara bi am na njëriñ lu mu amal loo xam ne nii eh, amal na amal na ko te loo xam ne nii xamuñu ko kon bërëb bi daal day bërëb bërëbu siyaara bërëbu sàkku ñaan bërëbu faj aajo boo ma ne du ko jullit war ma ne képp ko ma ne bépp hmm. war nga mën xam bërëb bi di ko siyaara te di ndax ay wàllu ñoo fi tëdd ay nit yàlla ñoo xam-xam ñoo fi tëdd loolu daal moo waral siyaara bi ngir si eh, sàkku ci fi ñaan ak fàttaliku fi suñu maam yu baax yaa xam ne ñu ngi tëdd ci bërëb bi loolu daal ci gàttal ci tënk rek nga xam ne moo waral siyaay bi yow yàlla jombar soxna jee bu defan suq ak cuune asalaamaaleykum Euh, ñu ngi nuyu bu baax a baax euh, seen Actu TV euh, di leen remercier bu baax baax seen teewaay fii fii nag li ñu fi indi mooy daf benn siyaar boo xam ne ñu koy amal di ko defal ki nga xam ne mooy suñu Mbusoobe nekkoon nijaay ci Serigne Touba doom bi nga xam ne moom lañ setoo ñun ñëpp ci askano ñuy Serigne Cheikh Omar lii nag nekk cinquième édition bi Euh, li ñu ci jublu mooy ñëw def siyaar barab yi nga xam ne moom fi la tëdd ma nga xam ne suñ Mamoor Jaara fi la tëdd suñ Bousso fi la tëdd ki nga xam ne mooy suñ euh, Seexu Bousso ak yeneen kii gaa yu baax yu bari muy barab boo xam ne barab barkeel la boo am yaakaar la ñu ñëw fi doon ko ziar di jàng ay kaamil jàng ay xasida Sëriñ Tuubaa ñëwoon fi ñaan fi sàkku fi wàllu fi barke Euh, liñ ci jublu nag moom moo nekk ñi nga xam ne mooy famille bi ñu amal ko di fi ñëw ñëpp ñëw fi ngir euh, barkeelu fi ci xéwal yi nekk fi loolu moo nekk objectif mooy njaboot gi delluwaat dajaloo ñëw siyaara si seen maam waaye nemmi ko waale bërëb bi nga xam ne fi lañ ñëw muy barab boo xam ne ñépp kenn ku ne bis dana jot danga ñëw tëdd fii ñu fàttalikuwaale ko xam ne tamit fii lañ luñ mën a kërti kërti tamit fii rek lañu ñu moo tax ñu ñëw fii waaye dundalaat ruu yi waaye tamit dundalaat xel yi ci maanaam euh, sàkkuwaat barke ci bërëb yu mel nii loolu moo waraloon ñëw seer ko waaye bi ñu ko defee tamit gis nañ famille bépp ñëw nañ teew nañ kilifa yi ñëw nañ gone yi ñëw nañ waaye tamit ànd nañ ko def ko ci discipline ànd ak yar ak teggin li nga xam ne moo lañ fi indi tamit yàlla na yàlla nañ ci rek ngërëmu sëñ bi te suñu borom baax taxawaay bi njaboot gi am euh, ngir taxaw bis bi seen bisu maam bi ba mu jàkk moo tax ñu ngi sant njaboot bi yëpp di wax ni bërëb bi bërëb la boo xam ne si bërëb bu am boo xam ne si kenn ku ne la war a ñëw barkeelu fi moo tax tamit dagg nañ seen yitte ñoom ñëpp mais ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam dagg nañ seen yitte lool ak ñi nga xam ne amoon nañ yéen dagg seen te ñëwuñ ñeneen ñëpp ñu leen di sant bu baax a baax. ñeent bi ñu ñëpp njabootu si seexu bu góor gi ak jigéen gi. ñëpp ñu leen di safa xasaale di ñaan suñu borom yàggal fii ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa yi ñi nga xam ne tamit ñooy rakk yeeg mag ñeeg mag yëpp ñu ngi leen ñu leen ñu di leen siyaar di leen ñaanal suñu borom yàggal seen taxawaay di sant bu baax a baax suñu Ahmadou mi nga xam ne moo nekk ci kanamu njaboot di ñaan nag suñu borom muy ñu fekk ñu bëree bëree bëri gis yokk fan bu baax yokk wér gi sutura si yokk tawfeex si yàlla ko yàlla def ñu ci yéen yëpp suñu borom àggale ko dañ fekk at yu bëree bëri tam ànd ak sutura ak mucc ak dolli kon daal ci suñu kàddu ñun ñëpp ñu ngi ñu ngi fiy teewal képp koo xam ne as askan ci suñu mbusoo bi ak képp koo xam ne askanoo la ci euh, buñ ñu tuddee suñu Bousso Be rek tudd nañ ñëpp tuddaal nañ Mbàkke tuddaal nañ Ndaw tuddaal nañ Faal lépp dugal na ci biir kon ñu ngi fi teewal ñëpp di ñaan suñu borom nangu siyaar bi te ñi ngi ko doon defal ñu yëg ko bu baax a baax ndax ñun bu ñu ko yëgee rek maanaam tawfeex dana ci dugg. ñu ngi leen di fekk at ba ci suñu